noo ngi sant yàlla di julli jël bi sallallahu wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xeewal ak mucc moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku ci aw yoonam ba tukki mbokk yi sunu waxtaan tey mi ngi aju ci juróom-ñetteelu ndénkaan ci fukki dénkaane yu yàlla indi ci saarul An'aam ndénkaan lii nag yàlla dañu ci digal muy maandu mu wax ne bu ngeen dee wax na ngeen maanu donte ki ngeen di waxal wala ki ngeen di wax ci moom day mbokk mbokk yi xam nanu ne atte ak seere dañoo bokk ci yi munta ñàkk fu ay nit dajee rek danañ aajowoo ñaar yooyu waaye ñaar yooyu nag bara ñoo mën a am njariñ mën a sottal la ñuy ca ñoom mooy bu fekkee dañoo taxaw cig maandu ak maandu da leen a lal maandu nag alquran yàlla da ko ci yittewoo digle ko ci ne nañuy maandu donte sax maandu gi day góor lu bokkut ak li sunu xarit bëgg wala li sunu mbokk bëgg donte maandu gi day jur lu sunu noon bëgg kon lu man di xew rek dafa digle maandu alquran bari fu muy digle maandu bokk na ci bu fii nu tey jàllee fii ci suratul An'am bu jàllee bokk na ci fi yàlla di waxee ne yàllaa ngi leen di digal lu bu ñu leen dénkee ngir ngeen sàmm ko ba delloo ko borom mi ngi leen di digal itam bu ngeen day àtte ngeen maam ngeen àtte ci maam ak fi muy waxe ne yéen ñi gëm na ngeen di taxaw ci ak maandu tey seere ngir yàlla doonte seere si dafa dal ci seen kaw mu dal ci seeni wayjur wala mu dal ci seeni bokk yi leen jege mu ne ki seere si dal ci moom bu fekkee day ku am wala muy ku ñàkk na xam ne yàlla moo gën a yey ci ñoom bu fekkee taxaw leen ngeen bëgg yàlla gën a yey ci taxaw kon bu leen topp seeni borom nee na yéen ñi gëm di taxaw ci seere ngir yàlla te bañ ay nit ak noonoog ñoom ak ñàkk juboo ak ñoom bu mu leen yóbbee ngeen ñàkk ñaari mbir yu aju ci seere yooyu alquran da koy tere sunna di ko tere yaar yooyu ñooy nëbbu seere ak seere lu dul dëgg ñaar yooyu lu ci nekk la tere alquran dafa wax ne bu leen di nëbbu seere ndax kuy nëbbu seere day mooy yàlla mooy ak mooy la loolu nag mooy seere sos bu fekkee nit ki defu ko mën naa tax am ak ñu sànku wala mën naa tax ñu tooñ nit mën naa tax ak tooñ dal ci nit wala mu tax ci nit sànku ku am lu mu war a seere loolu bu ko defut mu jur leen ci loolu nëbb seere sa day doon lu ñu araamal ci moom luñ ko tere bu ko defee ak mooy yàlla lay doon bu dee nag li mën a seere ñeneen mën nañ koo seere bu demut itam keneen dem boobaa euh, du ne ñëppay dem bu ci ñenn demee rek baax na bu dee nag seere lu dul dëgg moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo limaale ci bakkaar yu mag yi gën a mag bakkaar yu mag yi gën a mag bakkaar yi xam nañ ne am na yu ñuy tudde yu mag ak yu ndaw yu mag yooyu nag ya ca gën a magaat da caa limaale seere lu dul dëgg moom yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne bakkaar yu mag yi ja ca gën a mag ñooy bokkaaleeg bokkaaleeg yàlla lenn wala kenn ak dënge ñaari way wayjur ak seere lu dul dëgg kon bi muy lim bakkar yi gëna mag bi ñaar yi la jàllee rek moom la ci teg te ñaar yi la ku ne xam ne nañ toll yàlla wéetal ko moo jiitu kon sàkkal ko bu ko nit di bokkaaleel moo gën a rëy ci ab bakkaar yàlla bu àqam jàllee àq wayjur moo ci topp kon dënge ñaari wayjur ak sàggane leen moom itam mooy bàkkaar bi toppaat ci e, bokkaale ak yàlla lenn bu ñaar yu jàllee rek seere lu dëgg moomu ci yonte bi teg sallallahu alayhi wa sallam noo ngi ñaan yàlla kon mu boole nu ci ñiy maandu ngir nu mën a bokk ci ñi mu bëgg ndax moom moo wax ne yàlla bëgg na ñiy maandu noo koy ñaan itam mu defal nu yiwu àddina ak àllaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm may na fan gudd ak wér defal na jàppal ci sunu biir yëpp nangul na sunu baax yëpp